waaw kay jërëjëf jërë ngeen jëf ñu ngi taxaw ak euh, Cheikh Moustapha moom sëñ Mamour Mbacke moom Cheikh Mamour Fadal mi nga xamante ni moo daan taxawee liggéey bu am solo bi ñaan sunu borom subhanahu wa yokk ay leeram Euh, foofu ca barsaxul muhammadiya tey tey jii nag euh, sëñ Moustapha ñëw euh, fetli kollëre googu yokkaat jéego yooyu nga xamante ni foofu la ko waajuram mu sell woowu bàyyee woon mu amoon solo lool nga xamante nii la daan doxee ak ñun wétlante ko ak li nga xam mooy daayiramatuma xaddimatul xidma ñëw ubbi jataay bi ànd ak ñoom saa su nag waxtu ne loolu nag moo tax tey jii mu ñëw fetli kollëre googu bu baax baax sëñ Moustapha xanaa ñu bàyyi la kàddu gi bu ko defee nga wax ci li nga xamante mooy sax yëg insha allah aousubillahi min alsheytaan irajim <clears throat> bismillahi irrahmani irrahim wasalatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawla muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa salama tasliman mbokk yi waa daayira muxadamatul xidma ci njiital sëriñ xaafiya buso ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare sëñ Moustapha mi ngi am mbégte tey ñëw teew ci bisbu bu tedd bii nga xamee mooy bis bu jëkk ci sax ramadan al mubarak bis bi nga xamee ne eh, ku fi ñëw tey saxel dana dem ci sëñ maam morum sëñ Cheikh Mamadou Fadil nga xamee ne Cheikh Mamadou Muntaqa ak Cheikh Sidi Sidi Maxtaar daanañ ko fi yebal muy ñëw di jëmal si bis bi tey jii nag yàlla dogal yóbbu ko ca fëggan ci moom ñu ngi ñaan yàlla defal ko ay jokki ay tawfeexam ak xéewalam tas ci barkeem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 gën ñoo gunge bu baax a baax ba tànk yi nga xam ne sa waajuru selwa tegoon na ko foofu nga gën ñu ciy gunge bu baax a baax daara mu xadamatul xidma mu ngi fas kolër gi bu baax a baax gën ko jàpp bu baax a baax di la ñaanal lépp loo xam ne def nañ ko ci rek yal na at dëpp ak tawféexu sëriñ Touba comme ni nga xam ne sëriñ Mountakha noonu la koy ñaane saa su nekk waxtu jërëjëf jërë ngeen jëf